bërëb yi ngeen di gis ni moo di morgo bu grande mosquée bu Touba fii la ñuy defaree ñi nga xamante ni nii ñoom lañu ñu war a denc fële ca armeeru Baqiya waaye laataa loolu bërëb bi dafay laaj rek nga remplir yenn yi nga xamante ni nii ay charte la balaa rek ñuy jël en charge seen néew. xam nga ni képp koo xame ni yaa ngi dugg si ci morgo bi moo xam jëm si Baqiya wala nga jëm si ci morgue bi ci jumaa ji. boo agsee ak sa way dawlu am na ab benn question bay tontu loolu ngay tontu mooy jox xabaar ak xam-xam kii laaj ndax néew bi wàccoo na ak sart yi nga xam ne nii mooy faatu gi jaar na yoon. gannaaw morgue ba ñu ngi nii direction Bakhiya bokk ci armeel yu gën a mag fii ci diwaanu Sénégal. fii du ñu fi suul ku nekk wala itam du ñu suulee ci anam wu leen neex loolu itam di laaj ay charte ñëw bàqe ah si këyit boobu ak questionnaire boobu joxoon ak këyit yi laaj yëpp moo xam bu dee ko dëkk Touba faatoo ci hôpital mu indaale këyit hôpital bi wane moo faatu wala boog koy quartier ba mu faatoo safi quartier ba def këyit boo xam ne nii ñu dëppoo ñoom këyit boo xam dana war dana xam ne kii kat barab sanga la faatu dem ci biir dencukaay ba am na ñaari ñu fa ne ñoo xam ne tam loolu li bàyyi xel mooy saytu ak càmbar ndax dencin wa muy dëpp ak sunna waaw wala déet. bërëb bi nga xamante ni nii bërëbu dencukaay la léeg léegi itam mu jànkuwanteel yéen yi nga xamante ni moo di li ci mel ni sàcc. moom moo ñu ñëw maasale li li liñ fi jot a jël genn wàll gépp wekki bopp yi yàlla dogal nag bi mu wekkee bopp yi bopp yëpp fi ne man mii ma ànd ak gendarme yi àndoon jàpp ko yóbbu ko ma nga brigade bu ndindi ndax euh, dañuy wax waaye brigade bu Ndindy bi benn élément escadron bi ci bu bee bu bee gendarmerie euh, escadron bi kenn ci ñoom moo ànd ak man ñëw de déclaré ma ko ni ma mi ngi ni man ko kon nan dem euh, nit ci gémmiñu borom. Bakhiya nekk bërëb bi nga xamante ni nii ku ko tudd xel dem ci dencukaay néew bërëb bi sax ñoo ngi ko tijji janvier 2014 gannaaw ba ñu tëjee. armeel yu njëkk yi nga xamante ne ni moo dend ak grande mosquée bu Touba waaye fii di Bakhiya mu mel ni rek nekk na bërëb boo xamante ne ni dañu ko taxaw te ko taxaw moo di daayira xiit xidma mu nekk ab liggéey bu rëy bi nga xamante ne ni ñoom ñooñee ñoo ko gàlloo di ko wëyal